murid yi ana soppey Seex Abdul Xaadir borom Baxdaad amul morom gën gi imaam mooy ki ko doon amul morom gën di di jullit xam ne moom. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy suivre fii ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. di leen jox seen waaye ñu ngi fii kër sëñ Ismaïla Mbacke sëtu imam di spécial ila imam imam yi Cheikh Abdou Khadir Mbacke di guddeem gi tey di ñett ñaari fan ci weeru tam xarit ñu ñëw fi nag daal di fiy fekk ay góor yàlla fekk fi ay nit ñu baax ay kilifa léegi ñu bëggoon leen dékk suñu micro rek di leen laaj daal di leen nuyu ziyaar leen ange billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bañ sant yàlla julli sang sang yi Seydina Mouhamed ñu ngi fii daal di dugg fii nekk si sëtu imam muy sëñ Ismaïla Mbacke ku xam ñaari fanu tam xarit xam ne sëñ Ilimani Ilimani moo ko moom sëñ Abdou Khadir tey ñu ñëw fii daal di ñëw fii kër sëtu imaam daal di ko fi fekk si daal di fi fekk nag ay nattaangoom kër doomu baayam yaa ngi fi kër doomu yaayam yaa ngi fi ndax ku woote rek ku ne rek yaakaar naa dina am ñu la fekk si ma fekk fi nag benn kilifa bu baax maa ngi lay nuyu sëñ bi. ñu ngi leen di delloo nuyu bu baax. jële bi ak sant bi. Euh, Mouhamadul Hafiz Mbacke. Hafiz Mbacke. salaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam. maa ngi lay nuyu di la jërëjëf delloo ziar bu baax. tur ak sant bi. ah Mouhamadul Fadel Mbacke. Mouhamadul Fadel Mbacke ndeysaan kooku di sama sëriñ na def na bulaam bu baax tuutalul bés bi ba tey daal di fekk si fii setu imam muy sëñ Ismaïla Mbacke tey lan mooy sa teewaay ci bés bi. waaw ñoo ngi leen di nuyu eh, yéen ak fa ngeen bawoo ak ñi leen di seetaan ñëpp di nuyu suñu mbokk sëñ Ismaïla Mbacke di nuyu sëñ Mouhamadul Hafiz mii sëñ Abdou Samad Soyibu ak mboolem ñi fi nekk ñëpp. di rafetlu bu baax niñ fekkee sëñ la ci màggal gi ni muy dundale bisub maamam bi nga xam ne kenn ku ne sëñ Tuubaa li muy yaatu yaatu sa jëmm rek nga ca am kon euh, la nga ca am nag defar ko bu baax te gis nañ ne moom ci loolu rek la nekk euh, gis nañ ne it euh, fonk na ndigal li nga xam ne sëñ bi joxe na ko bu baax ci ci ku fi doon ñëw daaw ak daaw jékk xam ni muy doxale nga ñëw fi ren da xam ne moom li bu fekkoon am tudd la dañuy wax dafa tudd ba jëfe jëfe ndigal li euh, weesuwu ko ñun nag suñuy tànk ci moom euh, lebaluñ ko dañ koy fay ndax moom euh, yàlla daa dugal moom mbokk yëpp benn kàddu lañu am ci moom mooy xeebalut kenn bisam te it lépp lu muy def ak ku muy jàpp it Sëñ Tuubaa la lay jàpp képp koo xam ne sam sam nattukaay Sëñ Tuubaa nag doo doo def erreur mukk lool loolu lañ ko jàppe moom mi te buñ ko gisee buñ ko gisut bët boobu rek lañ koy xool loolu moo waral suñu teewaay fii ne ñun suñu demu xew sax bëriwut waaye bisam bii dañ ne woon mënuñ cee ñàkk ñëw fii lañ njëkke te fii la ñuy mujje ñoo ngi koy ñaanal suñu borom taxaw ko ba mu doon mag am nañ ci moom yaakaar bu baax di ñaan suñ mun taxaw yàgg fi loolu te wér ak di ko ñaanal murid yëpp jërë ngeen jëf comme ni ñu ko waxee macha allah muy Amadou Fadal sànni ci ay rafet ñëw fekk si fii sëñ Ismaïla Mbaye ki sëtu imam wax ci nag moom lu rafet macha allah ku gis bés bi tey xam na jël na mesure barrière yi li ñu soxla lépp tey koo fi gis takk na masque laal na gel yaakaar naa ni mu doon demee tey demeewul noonu. waa ba tey ñu ngi fii kër sëñ la sëtu imaam ñu ngi ñëwaat fii ci biir saal bi yaakaar naa fekk fi benn parrain xam na dañ koy dékk suñ bi ko rek laaj ko sëñ bi nuyu naa la. ngi lay fay soxna si. bu mu ne yokk kàddu gi ci kaw. waaw maa ngi lay fay soxna si. tur bi ak sant. waaw man maa ngi tudd Pape Dione waaw doon taalibe doon soppee sëriñ la ndeysaan doon soppee sëñ Ismaïla sëtu imam sëñ bi lan mooy sa waaye ci bés bi ak euh, lien bi nga sëkk ak sëñ sëtu imam muy Ismaïla Mbacke ba nga doon parrain bés bi tey. waaw di ci am yëg-yëg bu bu rëy nag ndax euh, sëriñ Ismaïla dafa def loo xam ne dafa dafa kawe suñu njort dafa def loo xam ne wax dëgg yàlla euh, jéggi na dayoo lool daal. ndax xam na ne sëriñ la ndax lii mu def nii dafa doon lu rëy ndax li tax mu doon lu lu rëy mooy sëriñ man soo déggee ma naan sëriñ sëriñ Abdou Khadir laa njëkk a xam ci sëriñ fekk na ba nga dégg dëgg sëriñ Ismaïla sëriñ Abdou Khadir Mbacke laa njëkk a xam ci ci sëriñ waaw su ma jumut ay 89 booba ma nga bustaan foofu laa nekkoon. daan daw ci biir keesam daan daw ci biir kees gi soxna naata si la mi yàgg na maa jox ay ay xéewal booba tuut tànk la booba ndaw laa màkkaan mi ñu nekk sëriñ Muudu Mbàkke moo ko may sama waajuru góor kon sëriñ Ismaila bu jëlee bis bu toll nii boole ma ci am naa yaakaar ci ne wax dëgg yàlla defal na ma loo xam ne adduna ba adduna kenn mënu maa defal lu gën a lu gën a rëy lii muy loo xam ne wax dëgg yàlla cant naa ko cant goo xam ne am na tàmbalikaay waaye amul fenn fu mën a yem ndax lii dafay am lu mu firndeel li mu firndeel mooy da lay da lay fàttali da lay fàttali démb ndax sama baay ak baayam démb lañu woon kon tey bu ñëwaatee mu defaat lu mel nii day mel ne ndax lii ma la wax nii ay tuut tànk lañu woon kon bu ñëwee yeesalaat ko day mel ne dafa fekke woon démb di salaat tey kon wax dëgg yàlla dañ koy sant cant goo xam ne am na tàmbalikaay waaye amul fu mu yam waaye nag na xam ne ñun sëkk suuka bis bu yàlla sàkk rek ñu ngi ci ginnaawam guddi ak bëccëg suba ak ngoon dégg nga jël nañ sunu lépp jox ko adduna ak àllaaxira sunu deret rek sunu njaboot ak sunu alal ak sunu lépp jox nañ ko sama baay bi sama ginnaaw heure bi daaw moom la woon mooy sama papa bu ndaw baay Bamba Joon kon bu defaatee lii ren rek wax dëgg yàlla kóllëre ka def ko kóllëre moo waaye du lu nu am du suñu alal du dara day daa sàmm couleur rek moo tax mu def lii waaye nag wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm daal ci bis bi jërëjëf. dañ koy sant bu baax di ko gërëm boo déggee ni mu waxee xam ne ci seen waajur la woon liñ naan ñoo raw ñaari noor ak ñaari nawet noonu lañu def ak sëñ Ismaïla Mbacke macha allah ba tey ñu ngi fii bi sëtu biir kër sëtu imam ba tey bëgg leen dégg suñu micro wax leen li xew ci biir màggal gi lépp. maa ngi fi fekk nag ndeysaan ay sëriñ ñoo ngi nii toog def seeni sañ si daal di wuy si sëtu imam macha allah yaakaar naa ne dangeen ngeen bis bi cofoo leen ko ba tey ma dékk ci kenn sama micro sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. di la ziar. di la bu baax mënee fàttali tur ak sant bi. sëñ Jili Sey. sëñ Jili sëy sëñ Jili Sey lan mooy sa teewaay tey fii ci bësu sëñ Ismaïla Mbacke sëtu imam. teewaay bi de moom mooy sëñ bi moom di ku baax rek boole ñu ci perin yi. mu doon loo xam ne nag maanaam lu ñu lu ñu jomb la mu jox ñu ko waaye nag day kóllëre goo xam ne dafa yàgg waaye nag bu ko neexoon mënoon na ko cee bañ a fekk parce que ñi mu ko mënoon a def bari nañ kon su kon tey bu ñu ci boolee rek maanaam day doon loo xam ne mbégte lay doon boo xam ne am na tàmbali waaye waaye amul fu mu yem waaw. ndeysaan boo ko déggee nee na amul na tàmbali waaye amul fu yam muy prin ci bis bi ma gis nga ànd ak say nit nga ànd ak ñoom ni waaw ànd ak samay xarit ñoo xam ne bu ma jógee rek dañuy jub ànd ak man waaw moom daal xam naa ne bis bi moom bii bis awma bis bu ko bis bu ko sut waaw ndax kenn ku nekk li may wax kenn ku nekk am nga bis waaye am na am na ci bis yoo xam ne nekkul nekkul nekkul nekkul forcément rek day doon day doon bis boo xam ne yow yaa koy wutal sa bopp waaw day wax loo xam ne ku ma toll ne sëñ Ismaïla Mbacke sëtu imaam di sët ci sëñ Abdou Khadir maanaam ci ñu ko xamul bu la bu amee bis bu toll ne bisu sëñ Abdou Khadir boole la ci waaw day doon loo xam ne loolu moom moom mbégte mi moom moom wax dëgg moom amul li ma waxoon sànq rek waaw amul am na tàmbali waaye waaye amul amul fu mu yem waaw kon daal ñu ci ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax a baax di xam nga nag dañoo bokkoon benn daara nag maa moom waaw maag suñu Ismaïla waaw dañoo bokkoon benn daara daan jàng te daanaka ñu defandoo lépp waaye nag biñ ci jógee xoolu loolu te moom it mu nekk ndeysaan ku oyof ku oyof koo xam ne euh, dafa jafe ci maaraay yi dafa cee jafe lool waaw ndaxte euh, day bari day da ciy bëri ñoo xam ne xëy na bu doon ñoom la buñ egsi fii ñu egsi dañuy doxee neneen maanaam sama classe bi dootuñu leen kii benn benn benn kii bi waaye nag moom bu yàlla defee mu ñëw àndaat ñun ba léegi nii mën naa ne man nañ meloon ba léegi noonu lañ mel muy ak baaxam ak oyofam waaw ak daal wàccee boppam ba mën a ànd ak nit ñi kon moom loolu tamit ak baaxam la waaye daal gis bis bi moom di ci sant bu baax di ci kontaan nag di ci kontaan bu baax a baax waaw. allah bis bi di ci kontaan bu baax mu nekkoon parrain daal di si fii sëtu imaam muy sëñ Ismaïla Mbacke. yaakaar naa ne mu kontaan ci bés bi ndax boo gisee ñu toog ci salle bi yëpp yaakaar naa ne seen histoire ak sëñ Ismaïla yàgg na moo raw ñaari noor ak ñaari nawet yéeg la ñuy daara la ànd ak ñoom ñii seen bàyyi ñoo àndoon ba tey rek ñu ngi ci biir kër sëñ Ismaïla setu imam ba tey pour jëlal leen tey maa ba tey maa ngi toog ak benn soxna nii ñu may si ñu may signalé nii ne ma marraine la soxna si nuy naa ñu lay fay soxna si mbaa xeeboo li nga def sa noir baax na de xam sàjj nga ci bésu imaam bi de. merci beaucoup. lan mooy sa lien yaak imaam satu satu imam. waaw moom moom sëriñ la xarit la mu nekk di ku baax lool macha allah wax dëgg yàlla baax laa ko xamee ak yaatu. teraanga nag moom yëfam la di mu kontante di rafetlu bu baax a baax bis bi ndax mën naa ne maa si gën a tuuti. te xew ma benn yoon su neexoon su ko neexoon xew ma daal macha allah wante aw ma daal di ko ñaan rek di ko bàyyeeg uh, maamam sëñ Abdou Khadir Mbacke mu fayal ma ko ci barkeb Serigne Touba li nekk si kanamam dàq li si ginnaawam foofu maanaam lépp ko suñu borom bi defaral ci barkeb Serigne Touba. <laughs> amin yaa bi lépp lu mu ko bëgg yàlla na ko ko Serigne maamam defal muy sëtu imam bi di sëñ Ismaïla Mbacke ñu nekk ci biir këram. yaakaar naa muy xaritam di àndandoom di ndoom ndax yaakaar naa foo gisee sëñ la gis ko foo tuddee sëñ ma la yi tudd ko yaakaar naa muy bés boo xam ne tamit tey sëñ la ndax lim topp ndax ndax lim bés bi toll nii mu war ko ci mën a fekk ba di ko ci dara jaara yaakaar naa ne loolu am na solo. bilaay loolu moom dëgg la macha allah. loo koy gën a di ko dolli amul ma koy dolli ndax moom c'est rafet macha allah xanaa ñaanal rek. <laughs> macha allah yàlla na ko maamam boole yéen ñaan gi. waaye ñu ngi nii di dugg ci waañu sëñ Ismaïla sëtu imaam daal di leen jox yi fi nekk ak waa waañ bi boo gisee berne yi fi nekk nga xam ne sëñ bi tey. mère yaay soxna Fatou Mbengue maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. ñu ngi ñëw fii fekk la ci waañ bi nga sonn lool. waaw ndax sëñ Ismaïla Mbacke jaral na ma lu ko ëpp. ndeysaan sëñ jaral na ma ko ëpp. ndax sama doom la ah ma ñëw ci koñ bi yàlla boole ma ak moom mu bëgg ma lool ngir yàlla ak yonent bi ak jëmm sëriñ Touba mi ñu boolewaat ci dëkk bi lépp màggalam gi bu koy def ñëw ci sama kër gi lépp loo xam ne li moo gën wala loo moo gën ci eh, nit ñi wala moo gën ci Serigne Touba sëñ Ismaïla fii la koy andi ñu defee ko kon nag ma di ko ñaanal yàlla fan gudd gu ànd ak wér lu man ren yàlla na man déwén ko di santit nag suñu waa koñ bi nga xam ne saa yu ma nee jóg ñu jóg ñooy togg ñooy defar ñooy organiser ñooy defar lépp kon nag ñoom ñëpp maa ngi leen di boole di leen sant te di leen gërëm jërëjëf Serigne Touba. merci beaucoup xam naa dañuy après dañuy jàll rek daal di xool berna yi maa ngi gis benn soxna bu fi taxaw nekk ci palaat yi salaamaaleykum. waaw ba tey ñu ngi nii waañu sëñ Ismaïla sëtu imaam ñu ngi fi fekk nag benn soxna sànq ba tey ñu ngi ko séen ci berna yi soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi ak sant bi. Mati Thiaw. lan moo tee waral sa teewaay tey fii ci kër sëñ Ismaïla rawatina ñu gis la fii ci biir waañ bi. waa ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant yàlla mi ñu defoon ñu fekkee ko heure bi daaw ñu fekkee waat ko ren di ñaan yàlla ñu teewee ko déwén yu bari ah di sant bu baax a baax a baax. Euh, xëy na ñun xamante wuñoo ak sëñ Ismaïla mais ñi nga xam ne ñoom lañ indi bernde yi ci biir kër gi ñooñu lañ xamanteel ko ci mel ni soxna Maane ah, ba tax na moo waral nag suñu teewaay moo tax ñu bàyyi suñuy kër soo ba léegi nekk fi ah di def di jàppale parce que dëkku Serigne Touba moom lu fi waaye def sa bopp nga ko defal di ñaanal Serigne Ismaïla lu mu mën ren bu déwénee yàlla na ko mën ci barke maamam. amiin yaa rabbi lu mu mën ren yàlla na ko mën déwén ci barke maamam. amul maam seere na Cheikh Abdoul Khader moom mat li mu doon Cheikh Abdoul Khader balay sa am na bis mu waaj ba njëkk jëm juma xiin wu rëy saqi wu tar min sama Cheikh Abdoul Khader Cheikh Abdoul Khader Cheikh Abdoul Khader kañ ko bi Cheikh Abdou Khadar amul moroom ngeen ji maam mooy ki ko doon Cheikh Abdou Khadar ku dib jëlit ku dib jëlit xam na ne moo mat li mu doon Cheikh Abdou Khadar am na bis mu waaj ba njëkk jëm jumaa حين وترسخ من السماء أنا بسم الله بجك جم جمعة وترسخ من السماء حسن كروك حسن كروك حسن كروك كتاو باك بندما الله جيس كبير جمعة جاجي تجلقا تنان بور بي الله جرنكو أنا صبي شيخ أبو الخار am na bis bu waaj ba jekk jëm jumaa xiin wu tara saqi mina sama xus na keroog ca taw baag pënd ma lan la jeef ca biir jumaa ja jiite julle ga tanaan buur bi yàlla jar na ko Cheikh Abdou Khadre Cheikh Abdou Khadr gis naa fi loo xam ne ñépp ko bàyyi Cheikh Abdou Khadr rek laa ji seppe aqiqatoog sereer ak li sexaama wa ahlu an tafarruqat li mat illazi anhum madiul qasir nee na tàggal nañ mag saay doom tàggale ma ak saa yu njaboot nee na génne ma nag ngir rasulullah bi may liggéey loolu mooy dix huit safar dix huit safar nag adduna bépp di ko waat sëñ Bamba tol noonu yàlla na yàgg ci barke xaadim rasul waaw waaw jànkat yaa ngi toog ñëpp a ngi toog sëñ Ismaïla nga toog yàlla na nga ko yàgg taxaw as góor nga nit ku baax nga fonk nga ñëpp faale nga ñëpp yëng nga ñëpp sëñ Bamba nag xam ngeen ni léppam liggéey rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo taxoon ñu génne ko ah fi fii ci Mbàkke Baari Jolof lañ ko génnee moom Serigne Touba ba tax mu ne xaratu yow ma sabti saamini asar li xidmatil muxtaari fii sahri safar xaratu génn naa yow ma sabti bisub gaaw saamini asar fukki fan ak juróom-ñett ñu ne ko li tax mu ne li xidmatil muxtaar moom lépp liggéey leen bi rek ko waral li xidmatil muxtaar ñu ne ko ban weer la mu ne fii sahri safar looloo waral 18 su ngeen ma dégloo tey ma dellu yeete ndax ñiy nelaw seen xol yi dellu seeti kuréeri mbir laaj xam la mu laaj leen baram ke amul lu ngeen amul gumbay ñacaar laa ngi tee ngeen ni wolof man ku xamul laajul ku xam xaw maw layam ku toppatul yàlla na toppi waayam baalu ko dal bum ko xul fulaayam lislaam di jooy lislaam di jooy kenn ba génn ci soowu jant fépp mel ni làmbaay Seex Bamba daal di ñaan ci barkeb jiili ni yàlla may saf yi kullu jéeli te sopp sëñ Ismaïla Mbacke sa loxo ci atu leen gaañi teewlu leen mama teewaan li ci saa xel ak a seerlal seerlal sëñ Ismaïla amul morom ku bëgg sëriñ Ismaïla Mbacke sa loxo ci sëtu jiili sëtu imam la ku xóotal ci sa booy xalaat de xam ki ma waajal ajal wul kaani teewlu leen Ismaïla amul moroom ku bëgg Seex Ismaïla Mbàkke sa loxo ci sëtu diine sëtu imam la ku xuuta xel booy xalaat te xam ma doy waajal ku bëgg a tàggoog bàkkaar dugal taxaw ca ko yël bu màggal sëñ Ismaïla bu ko def fekk dewen de sëñ Ismaïla amul moroom ku xuuta sëtu imam la ku xuutal soxol mooy xalaat nga xam waajal waajal ku sopp Sëriñ Ismaïla Mbàkke sa loxo dëkku maamam sa aadatoo ku mu leeru ku ne baax daat de xam nga waa joko suulal suulal ajo leen gaa yi teewlu leen mama teewal mama teewal ku sopp Sëriñ Ismaïla Mbàkke sa loxo dëkku maamam sa aadatoo ku mu leerul ku ne baax daat de xam nga waa joko تسليما سليما وجعل فتو امام لتي امام وسوك سيرين اسماعيل مبكي سا لوخو دي لا ñaar ñoko set tax na ba sensul bu bodde ka xéru mel ne ku réeru réeru naru mam na ta ya baax ku ñaar ñoo ko sopp tax na ba siisu ba siisu te du boddee du moom mi ëpp naa tudd maamam sëñ Abdou Khadir tuddal way juróom sëñ Mourou Abdou Khadir ku ko miin te daan ko fréquenté xam nga ne doxoon doxinu maam Cheikh Rafal la yoroon moom Baye Fall la woon barki sëñ Touba dugg naa fii ci biir kër gi waaye juróom soxna naa te la di waxtaan ak man ci sëñ Modou Abdou Khadir trois heures de temps te baat bu mu wax du ca dem barki sëñ Touba soxna naa te waaye juróom moom nee na ma sëñ Ousmane mu ne ko waa mu ne ma sëñ Modou Abdou Khadir ku tëdd ba guddi ñu ne la yaa ko gën a doon murid saalix ña la ko wax dañ laa bëgg waaye xamoo daal na ma borom jëf ju ju bari la woon ju bare bare bari te du ko wax te yooyu qualité dama ko gis ci sëñ bi mën na laa bëgg sëñ Ismaïla mën na laa bëgg di la defal àdduna ak li ci biir te wallaahi azim yow mi toog fii mu di la ko defal ak ci toog fii ci ci wetam ku ko xam ci yéen ñaar yaa ko wax waaye moom du ko wax bu ko neexoon wax naa ko daaw nee naa ko su la neexoon tegale say tànk toog fële ndax kuy sa waajur sëñ Modou Abdou Khadir kuy waajuram sëñ Abdou kuy sa waajur soxna naata Silla kuy waajuram sëñ Modou Ba Silla waaye sëñ bi te ku xam kooka ku xam ku xam sëñ Modou Ba Silla doy na sëkk ci séddu barki sëñ Touba waaye mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bi ni ñaanalee seex Mouhamadul Muntaqa mu yàgg fi loolu te wér ñaanal sëriñ seex jëmu mu yàgg fi loolu te noo ngi siyaare bu baax kilifeeg jataay bi di sëriñ Ismaahila Mbacke Mbacke noo ngi lay siyaare bu baax di la ñaanal ci sa barke maam. fan wu gudd loolu ànd ko wér ba yéene ak naal yëpp yegg ci barki sëñ Touba. ñu jël kàddu gi nag ngir sëriñ Jili Sey mii nga xam ne sëriñ bi da ko boole ci ñi nga xam ne ñoom la tudde bis bi sëriñ Jili di ndaw loo xam ne sëñ tubaat doo nga ko ñor sëriñ bi bàyyi ko xel lool li ko waral rek mooy ta taalibe gi nga xam ne sëñ jii Jili am na ko ak pas-pas bi nga xam ne am na ko ci digganteem ak moom moo waral bi bis bi ñëwee mu boole ko ci ñi nga xam ne ñoom la ko tuddee euh, sëriñ bi sëñ jii Jili nee na mi ngi am mbégte bu baax di la xamal ne bis bi ànd na ay mbokkam ànd naag ay xaritam ànd naag ay wëllëreem ànd naag ay soxnaam ànd naag nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel ñëpp ngir fonk nga xam ne fonk da ko bis bi buñ ci tuddee magam sëriñ sa yi ma nga nee toog nga xam ne booba ba léegi mi ngi ko ànd ak moom ngir lu taaral bis bi ànd ak sëriñ Mouhamadou Diaw Thiam jànkatub xasaayit nga xam ne moom it boobu ba léegi mi ngi bàyyi yitte yëpp ñëw ànd ak sëriñ jiili ci bis bi ànd ak ay soxnaam ña nga nee toog ñoom ñëpp ànd ak seen jiili ngir bis bi sëriñ bi sëñ jii li na bég na lool xolam sedd na nee na amul dara loo xam ne moom la lay fayee lu bàyyi la ak sa maam xaadim rasul mi nga xam ne ku mu fay nga xam ne fay na la nee na mi ngi lay ñaanal bu baax te it ñu xam ne sëriñ jili mii ak sëriñ bi ñoo bokkoon jenn daara joo xam ne fa lañ doon jànge alxuraan keroog alxames bi ñëwee ci kër gi sëriñ bi sëriñ jili di jébbal ab liggéeyam sëriñ bi daf ko war leral daf ne man ni nit ñi tuddee bis ak man ni may tuddee bis bokkut ndax jamono dafa tëri dafa doy waar te kilifa yàlla da koo da ko am nu mu ko def bu bu doxee tuuti rek pour mu mu mu dem day yomb waaye nag moom day am bis xool nit yi démbam yi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel te mënut kenn ku nekk mu ñëw ci baas bi jox la loxo lam man mooy bis bi mu am kenn ku nekk mu woo jox la ci cër ba nga xam ne war nga ko caa am nee na loolu moo waral sëñ jiili mii ak moroomam yi nga xam ne ñoom la tudd bis bi loolu waral mu tudd leen ko sëñ jiili mii ak moom ñoo bokkoon jenn daar du leen jànge alxuraan ba yàlla dogal lii mu dogal sëriñ bi moo ne ma man leeralaale ko sax ci kaddu gi waaye nuru mu ko woon a leeral kon daal sëriñ bi sëñ jili nee na bég na nee na xolam sedd na ñu ngi lay ñaanal bu baax saa borom guddal soo fan te wéral say cër ba sa yéene ak sa naal yëpp nga yeggale ko ci barki sëñ Touba sëñ jili bég na xolam sedd na ñoo ngi taxaw la foofu kaddu yi ndax dafa guddi te heure bi a ngi dox te xaarewul te ku ne xam na ne asamaan ci neexul tey it jànkite xasaayit yaa ngi ni toog te it war nañoo feeñal xaside yi li wax ji neex neex xaside yee ko dàq kon dañuy bàyyi rek jànkati xasida ñëw doxal bu ko defee ñu teewlu leen wasalaamu aleykum sunu ndam benn jumaa la capital ba ni murid yi jugu masalik xolal ma taaram ba biir mi sooroor masaalikul jinan laani muridin ee rëy na loole ay waayi masalik xolal ma taaram ba biir ga ak di ten juróomi sooroor masaalikul jinan la imam borom jàmm gën si ñëpp kenn du fi sax jërëjëf Ismaïla Mbacke jërëjëf surtout imam borom jàmm gën si ñëpp kenn du fi sax jërëjëf Ismaïla Mbacke jërëjëf surtout imam borom jàmm gën si ñëpp kenn du fi sax jërëjëf Ismaïla Mbacke jërëjëf sa tur imam borom jàmm ji kenn du fi seex Ismaïla Mbacke sa tur imam borom jàmm ji taw feex mbaay woyal sang bi taw feex woyal sang bi taw feex mbaay woyal sang bi taw feex woyal sang bi taw feex mbaay woyal sang bi taw feex woyal sang bi taw feex mbaay woyal sang bi taw feex woyal sang bi taw feex mbaay woyal sang bi taw feex woyal sang bi taw feex mbaay woyal sang bi na neex taw feex woyal sang bi taw feex mbaay woyal sang bi taw feex woyal sang bi na neex taw feex wayal sang bi tawfeex mbaay wayal sang bi tawfeex wayal sang bi tawfeex mbaay wayal sang bi tawfeex wayal sang bi tawfeex mbaay wayal sang bi tawfeex wayal sang bi tawfeex mbaay wayal sang bi waaw ay yow Mbàkke doo absent Mbàkke doo absent Serigne Saliou doo absent e eh, Mbàkke doo absent yow Mbàkke doo absent toujours c'est présent ndax yaay rafet na ak keneen su ma jiitoo xar leen su ma demee gisuma leen ni ma dëpp jël si leen ak keneen su ma jiitoo xar leen su ma demee gisuma leen ni ma dëpp jël si leen ni bu ma demee ba gisatuma leen ma dëpp jël si leen waxam ji rëy ji tax ñu na xam ne Mbàkke corona demal corona demal bu demul tamit du teeru safar ndeysaan eh. am na ñu bëgg a màggale ay bu nu dee dalit du tee nu dem eh bu nu dee dalit du tee nu dem eh bu nu dee dalit du tee nu dem sama jaaju ñor dani safar ndeysaan di màggal ko barna lay lay la corona demal corona demal corona demal corona demal jub imam bi mu tedd kaa ngi sëñ Ismaïla yaay mbégum senees be bàyyil mu dem rek waaw waaw bàyyil mu dem rek ma ne ndaw ñi teral nga mag ñi ba ñëpp baax yay mbégum jeunesse bi ay waay ndey sa si Ismaïla yay mbégum te moom nga yaatal yaa mën a baaxal way naa la bàkkul yay mbégum jeunesse bi ndeysaan waxal ko bay Sëriñ Ismaïla way soxna ñuuti sa mbir du mooy sa maam jee ay waay teer nga ku fonk nit nga ku ñëw nga berndeel ku yëngu sa nees dee ay waay ana soppe Serigne Walaay oh naana orange canette ya ju jeex jëkkër ga waaw ndeysaan dem alalam bu ko booleeg nitam ca isatu imaam Malanom, let's hope and get over this and do it around there. génération surtout imam

defar nga ndaw ñi teral nga mag ñi ñu bu baax yaay bégu jeunesse bi yaatal yaa mën a baaxal way naa la bàkkul yaay mbégum sa nees be sëñ Ismaïla yaay mbégum sa nees sa mbir du tuuti limaani fa yëg ëllëg mbàkke mooy sa maam sama doom la Cheikh Béthio tuuti sa mbir du tuuti li maa ni tey ak ëllëg Mbàkke mooy sa maam bi Yeah. ku fonk nit nga ku ñëw nga bernde weesu tur ya yar na leen ñëw ci bëgg Bamba bu ma sëtu imam de jëgu jëgu Abdou Khadir Mbacké du may sa baay yaa am kóllëre doo war doo lore ci sëtu imaam bi waaw ndeysaan safee di biiram alalam du ko boole nitam ci sëtu imaam bi waaw waaw ndeysaan sëtu ba doomu nit ana soppa yi bay jiili la soppe ndaw ñi la surtout bay jiili la soppe ndaw ñi la surtout bay jiili la soppe ndaw ñi la ana waa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp ñu ngi nuyu mbokki jullit yépp di nuyu mbokki taalibe yëpp di di leen sant bu baax yi ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha sunu borom may ko mu yàgg fi lool te ànd ko wér ànd ko njabootu Sëñ Tuubaa gépp di jéggalu bu baax ci coono yi nag di leen masaw bu baax ñii ñëpp muy góor ak jigéen mag ak ndaw di sant magi koñ bi ni ma ko daa waxee rek muy bépp bànqaas bu ñu mën a bokk rek muy njare wala muy waa Sëriñ Jiri Wadane ndax eh, boo xoolee njare njaree fi ëpp ak waa kër sëñ Jéeri Waadaan ak waa kër sëñ Abdul Xadir kon ñoom rek laay boole cant gi bu ko defee ñu yàggaleel ma ko fu ñu ko war a yëgeel ñëpp mm-hmm. di sant képp koo xam ne ni yaa ngi ànd ak ñun ci liggéey bi ñu xam la wala xamuñ la ñu ngi lay sant bu baax di sant dëkkandoo yi nga xam ne saa su ne ñu ngi ànd ak ñun ci liggéey bi suñ Tuubaa di ñu guddeel di ñu bëccëgal xam naa comme màggali fi jaar daa bëri lool tawat ju xaw a doy waar ñëw fi xawoon a faagaagal yu bari ba suñ mbokki jàngkat yi xawoon a tumuranke lool ci fu ñu fu ñu toog di jàng suñ mbokk yi luyee baas xaw a tumuranke lool ñu ñëw di ko luye si mm-hmm. mbokk yi luye ay rajo xaw na tumuranke lool fu ñu koy luye kon jamono naqari na ci ñëpp waaye nag loolu nag dañ ci sant suñu boroom di sant sama invité yi nga xam ne ñoom laa defoon invité ren mm-hmm. ci na ma ko waxe rek xam naa lu ñuy tënk la mooy dafa am lu ñuy boole wala ay act yu ñuy def ba tax ñu ñu def leen ko bu dee Abdul Xaadar mii ñoo bokkoon nekk ca daara ja ñoo fa nekkoon bu yàgg at mu jot mu ñëw ci ñun bu ñëwee joxe addiyaam ba noppi nekk ci liggéey bi ñu xalaat ne benn bis rek lañu am buñ mën a sagal doomu aadama ñu gisub sëñ Abdul Xaadir bi ñu ñëw teg ko suñu kanam du alal duñ koy jox du dara sëñ Pape Jonn mi noonu rakkam sama sama taalibe sama mbokkum taalibe sax la ñuy wax waaye comme noonu lañu baaxoo xam yoon wi ku ñu jëmale ci yow ñu ne sa sa ab taalibe moo tax ma ne sama taalibe waaye sama mbokkum taalibe la moom it mu doon ku baax koo xam ne saa su ne day ñëw ci liggéey bi di ci dolli yenn yenn ci xale yi ci ci expérience am ba noppi di ci def doolem ci loo xam ne nii da damay dox ba ci mbedd mi ci nit ñi laa koy dégg ñu koy waxat kon nag it moom it lenn rek lañ am muy suñ bis bi ñu jàpp ne buñ ko teegee suñu kanam dana xam ne yëg nañ ko mu bari ci nag lool lool ci biir muy ñëpp rek ñoo xam ne nii ci waa génération sëtu imam ak ci ñoo xam ne nii ay xarit lañ di ci profito di santaale soxna mama ndaw mi daanaka moom mi surprise la ma defal lii moo a ko moo ma ko yónnee moo ma ko ñëwee kon nag loolu it nañ ko ñaanal di sant it sécurité nga xam ne ñoom ña nga dëkk fa Mbour ñu tàggate tàggate noonu foofu ñu àndoon ak ñun di liggéey sëñ Touba saa su ne bañ dalee màggalu màggal sëñ Abdou Khadir gi ba léegi ñu koy ànd ak ñun ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm daayira génération satu imam di leen sant bu baax di leen gërëm muy góor jigéen mag ak ndaw buñ tuddee ñi nekk ci bopp yi muy sëñ Dame Mbaye ak sëñ Ayoba Dieye euh, ak Ahmadou mi ak euh, Touba Chane ak Serigne Mbaye daayira bu soxna yi ñu tudd si soxna maam jaara ak soxna Fama euh, dañuy bañ di lim waaye kon tudd nañ ñëpp ndax li ma leen di wax rek muy ñu nii ñuy dundee toog gi ñuy toog nii sax daanaka worma yi ëpp nii sax day léeg-léeg day xaw a métti ci ñun moo tax bu màggal gi jàllee rek dañuy dindiwaat mbubbum sëriñ bi teg ne doonaatu dong rek ba bisaat bi ñëwaat ndax dañuy bañ ñu teel ñoo yóbbu fu nu eggut te àdduna dafa gaaw a soppeeku te rawaata bëri na bëri na ci nit li muy li muy gaaw a soppeeku lu ne moo yëg boppam loolu nag la ñuy bañ mu dàpp ñu moo tax fu màggal jeexee rek ab dong la ñu doonaat léegi léegi jàpp na am na ñoo xam ne jàpp nañ ñi dañoo ñàkk fulla ñàkkuñ fulla de dañoo xam ne ñuy doxee euh, ba léegi léegi nga def lu xaw a nuru lu saayre ñenn ñi dañ koy gisee nee na dama koy xam waaye dama dañ maa yaree Saalum ma xam ma xam doomu aadama léegi léegi boo ni ma koy waxee sama mbokk sëriñ yi ne leen boo doonee sëriñ boo xam ne nii nag ne tekk kon nuyu ñaari baat ngay wax ak moom jàll lu ñuy wax. moom day amut yitte boo amee yitte ju ëpp lu ñuy wax jeex na waaye nag du tee nag ngay bëgg te yàlla rek a tax di bañ rekk te yàlla tax adduna nag xaw naa doy war lool te soppeeku te yu bëree bëri doy waar lool lool lool lool lool ñu xamu ci lu baree bari waaye lu ci bëree bëri da nga ciy dëgg sa tànk romb jàll man bu may jàpp benn yoon laa jàpp duma bañ nitin ngir dara ab jullit dee su ko bañ kon ku may bëgg sëñ tubaa tax rek sëñ tubaa rek laa lay bëggee léegi-léegi nag nit nga bañ ko ci jikkoom jikko bokkut ak jëmmi nit ki nga bañ ko léegi-léegi ay doxalin moo la du neex loolu muy man muy yow muy keneen ak keneen loolu moom bari na ci man am na ñoo xam ne sama doxalin neexu leen keneen ak keneen noonu ma ne damay gis koo xam ne doxalin neexu ma loolu moom mooy nit ndax bu ci ku ne ci ñun rek bu matoon na mu war a mate kon suñ borom duñ xam cërëm bi mu doon waaye mooy doxal ci ñun loolu muy matadi yi ñuy doxale ni loolu nag damay bëgg ku ne ci ñun ñu koy bàyyi xel ci dereti sëñ bi laa bokk ci dereti sëñ bi laa bokk propagande ma loolu nekk dama koy teel a leeral xëccoo moom taalibe ñi nga xam ne njëbbaluwuñ ci man taxuñ may wax ndax fii soppi yi yëpp boo xoolee ñii ci waa Njaayaan lañ bokk ñi waa Kër Sëñ Njëri waa daan kon foofu taxuñ may wax ndax ku ne am nga sab sëriñ waaye li ma ci jublu mooy ñu xam ne man propagande may taalibe sëñ Abdul Xaadir mii di sama maam sax bëri woon ay taalibe ay soppi ëppale woon kon man propagande moom taalibe xëccuma kenn it ngir di ko neexal ngir mu jëm ci man forcé wu ma kenn ngir mu bëgg ma ku may bëgg ngi na ma bëgg ngir jëmmi sëñ Tuubaa koo xam ne ni dem nga ba xam ne jàpp nga ne loolu amul nag it jéggal naa la ko ànduma it ànd ak nit àndi tricage li may wax lu dëggule ci man ku may àndal bul ànd man ci ci ne daa day am ñu ko topp rek nga ànd ak man déedéet loolu loolu loolu bu mbooloo mi demoon rek nga bàyyi ma nit daa am ci loo koy jàppee mu jàpp la ca nga xam ne bu demoon ba kenn toppatu ko it nga bu gestoo gis la ci sa ginnaaw te loolooy àdduna bu ko defee li tax may résumé yooyu du ko nettali mooy <laughs> damay dama yu bëri dama koy dégg man xëccu may xëccoo may taalibe propagande ma nii ba ma juddoo la ma ko yàlla def ba léegi mënu ma ci dara maa ngi nii daayira yi gisu leen fi ana daayira Mbour jigéen ñi ñëwuñ sécurité bi ñoo ci ñëw te bëriwuñ kon man jox naa leen gànt ana daayira Isine Galaas bi juróomi nit a ci ñëw jox naa leen gànt ana daayira Daaru Rahman bi juróomi nit a ci ñëw jox naa leen gant waaye loo wàññi wàññi du tere nit ñi ñëw defuma ko sama bopp wutuma lu may takk ngir ngir ngir nit ñi ñëw yooyu nag ay léeb lay cax yu ma yu ma xam ba noppi waaye nag day ajoo leeral léeg-léegi bañ xam ko tey rëgaluma loolu moom ñu ñu loolu loolu moom ñenn yi nañ ko xam man yàlla bindoo ma ma ragal sallallahu alayhi wa sallam dane yéen ñi nga xam ne ne da ngeen di wër di yàqi der njaalookat bi njaaloo sax suñ borom dafa am sart yum ci teg muy na mat ñeenti seere ngay man doog di mën a wax ni ki da doon njaaloo kon ñiy wër di wax di di tuumaal nit ñi muy ci man muy ci keneen ak keneen nañu def très attention ci ci tuuma ku ne daal boo tëddee sam néeg xamal na nga fay nelawee waaye bul xam nit na muy nelawee ci néegam boo tëddee di nelawee jàppal ni nit ki moom am na ñoo xam ne bu ñu tëddee du nelaw guddi bis penc nag yu bari yu bari leer li ma ci jublu rek mooy leen bëgg te yàlla tax di di di ànd ak nit te yàlla tax bu leen ànd ci ne daa xew ak yooyu ñun doxuñ ci ay xew man ma ah man de doxuma ci man nii ma def da damaa jàpp ne bisub sëñ Abdou Khadir ruuruma koo tuutal dong moo tax ma ko def de te it yii du ci colin de nañ ne colin de su ci xooli nit du ay bëgg àdduna bis danga koy def ñi xam nañ ma bu ma génnee ci yi maa ngi ci yeneen yii moom bis la rek ñii ñëpp ku ne yaa ngi solo waaj ñëw loolu mooy yëfi jullit sax ab jullit dafa war a civilisé dama koy wax ñii dama leen damaa bëgg a def ci yéen loo xam ne ni foo leen mën a dem doo leen ñee kenn dañuy xool ci yéen di leen ñee loolu nag liggéey bu metti la ndax ñi ngi koy defal bu dee ay tut tànk doon ay xale mën nañoo bañ a xam li nga leen di wax waaye loolu it na ngeen ko jàpp boo ko fa defee nañ gën a dëgërlu gën a am pas-pas gën a am positif taalibe it nañ yem ci taalibe te bañ a dugg ci détails yi diggante ab sëriñ ak ub sëriñ yooyu dañ am léegi taalibe yi xew mooy dañu gëstu sëriñ bee ndax jubóon ak sëriñ bee ak sëriñ bee laa faral ak sëriñ nangam yooyu yooyu yooyu yooyu yooyu yooyu doxut yi may wax am na wala amut dañu gëstu sëñ Ismaila ndax jubóon na ak sëñ diw sëñ Ismaila ndax mi nga ànd ak diw sëñ Ismaila nangam nangam dama koy xam man du dof lu ma nit def xam naa ko yenn yi nag damay romb jàll ndax damay xam ne amul njariñ yenn yi nag dangay gumb gumba taxlu loolu li ma ci jubloo wax mooy ñii ànd ak man te sëñ Tuubaa tax buñ ñëwee di ànd ak man di liggéey keneen ka jógee ci àll ba di wax duma la diglu soo fexee ba tàbbal ko sama noppit xamal ne li nga may wax lu ma soof la dama ciy mënul dara loolu nañ ko xamaale ci man toog ci nit di di di debaa léeg-léeg ngay to wax ci nit lu ñaaw dama da dama lay ruus dong waaye neexuma man bëgguma ko jëw sama wet ci nit di wax lu ñaaw bëgguma ko kon nag nañuy def nañ nañuy xam ni ñuy jëflanteeg nit ñi bu ko defee nag ñu dem ci sëriñ tawféex dama bëgg ngeen ne ko di nga am tawféex incha allah di nga am tawféex sëñ bi loo loolu la ma ci la tax ma wax ko du tig daanu kate du baatin man doxew ma mbirum baatin ci nite laay doxe xaw ma sama bopp dara bay xamal kenn dara ñii ma yaakaar it dama leen koy wax dama ne leen mbir mi sëñ tubaa donc la ko ci yaakaar wala mu mu jàpp ne mu jàpp ne moom nga gëm bis bu doxee tuuti li sëñ Abdou waxoon rek koo ne sa mooy sab sëriñ ku dul sëñ tubaa boo leen xam nu mu ko waxate sax ci biir bàmmeel bu mënoon a jug jëlu yat dóor la def def ko nit ñi sëñ Tuubaa lañ yaakaar ñun ñu dañoo topp ngir bëgg ngir deret sëñ Tuubaa loolu nag ñun naaguwuñ ci xam nañ ko bu baax waaye taw feex ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la wax ne euh, jëf ji rafet na daaw la ñu xam ne xamante daaw yaakaar naa xale yi xam nañ ko daaw motudi at joxuma la luñ la nit musta jox joxuma la dara sax laay wax laa koy wax kon biir waay yooyu man euh, ñun liñ naan noppi gar mi dañ ko am dañuy diglu dañuy dégg waaye nee nga du alal moo tax man ñi ma xam-xam ne aw ma alal kon wayoo ma ngir alal waaye pas-pas boo nga am ngir kóllëre ak jàpp ne lii lu war la te sëñ Tuubaa tax nga koy def damay bëgg nit koo xam ne nii buy wax muy jëf ji mooy bul waxee ci biir baas ngir nit ñi lay gis waaye da ngay jëf ngir yàlla tax te loolu la def defaaleel nga ko ñëpp nag ñi ñu amoon yéene way maag te histoire bi fu mën a dem ci àdduna di yaay ki ma njëkk defal lii moo tax tur nga tudd nag jàppal ne loolu mën naa wéy it nañu dem nga xool tur nga tudd dal moom baax na téye téyel tur woowu rek waaw téyel tur woowu rek bu ko defee bu kenn ne damay léebu ah waaw man léebu ku ma tooñoon dama la koy leeral damaa waxoon ci samay vidéo ne ku ma yëg ma yëg la ku ma jàpp ma jàpp la ku ma bàyyi nag du ma ne la bàyyi naa la waaye dinaa màndu ci yow loolu moom ñi ma xam nañ seetaan samay vidéo noonu laay bindoo ak rafetal nag moom fet na daal laa xam ne muy samay dëkkandoo moom foofu nag lislaam moom ma ca soññ téye ma ci su ma ko dogoon su ma ko dogoon dama ci am jafe-jafe waaye ci environnement bi ñuy dund nii ci yii nii may jàpp ma jàpp la nga téye ma ma téye la nga bàyyi ma ma bàyyi la ndax bu fekkee dereti sëñ tubaa nga ne moom ngay xool ci nit ki te li ngay wàcc ci sëñ tubaa nga koy mën a jaarale neex ba nit ñi di ko jox soo bàyyi lu may wàññi nu samay at gën a yokk samay xéwal gën a yokk loolu nag dañ koy xam xanaa nii ma toll man naay bañ a léeg mu neex léeg-léeg mu naqari waaye bu may gën a yokk gën a am loolu nag loolu lu ñu xam la mas ngaa gis lu bokk ci sëñ tubaa dem ba am ñeen fukki at wala juróom benn fukki at te deful nii ñëpp def waaw tàmbalema bi nag dana metti ñun nag sant nañ sëñ Tuubaa ba da gis mbir yëpp jag nga jàpp ne dara laa ci duma ci dara ñii ma wër ngee ñeneen ji leen xeeb ñoom la man na la woon man naan milliardaire ñëw na milliardaire laay tuddee nanga mu ñëw xëbar xëbari toog fi de nga xam ne ki toog dana xam ne alal ja tax mm-hmm. kii bu ma ko bu ma ko bu ma ko defee lii lu mbon bon day kut kuti dajale ay yëfam am ñaqam la waaye dañoo jaxasoo moo tax mu def ko ma din moo tax ma def ko kiit noonu keneen ak noonu ci biir daayira bi it incha allah yi ñuy bëgg waajal fan yi mooy surprise bi bi ñu ma defal man it ñu leen koy waaj di defal ndax ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ waaye at mu jot léegi dañoo bëgg di ci tànn jëm jënn jëmm di ko defal surprise ba ñëpp mat ndax ñoom ñëpp ñoo mérito ndokke leen ndax lii ñu def cofeel ak mbëggeel mënu ko weesu ak sama ñaari donga nag yoo xam ne muy njabas ak ak nu mu tuddati màgg soxna màggat ñoom it sant naa leen ak waa kër sëñ Abdou Khadir yi nekk fi yëpp rek ñoom it guddeeg bëccëg dañuy sonn ci man di xeex yàgg na kër sëñ kër sëñ ba léegi loo ne daj naa ko nag bu leen yaakaar ne yii daa yomb de wala dangay jekki jekk de am nii de ay micro sax dëpp nañ ma ngir yàqal ma samay samay samay mbir loolu ñenn ñi xam nañ ko ngir yàq samay affaire yu bareex bari xew na kon nit kuy jukku ne di dox dana metti de waaye nag boo doxee as sabru ka sabri murun fi musaaxatihi lakin xawaaqibu ala min al asali boo mujjee boo muñee moom yàgg-yàgg dañ ne muñ mi ngi mel ne xaalu xetar xam ngeen xaalu xetar mooy xaali beref yi nekk ci àll bi nga xam ne dañ koy bay boo ko gisee da koy teg xaal waaye boo ko xaree ñam ko day xat nee nañ muñ nan la mel nag muñ boo koy def day metti lool waaye boo demee ba mujj gi nag day mel ne lem man damay tëdd fii sama kër gi léeg-léeg du ma am lu ma reere am na ñoo xam ne ni ñuy déggee sama tur bi dañuy yaakaar ne moom ñàkkuma dara dama leen di wax ci ñi ñàkk rek laay dimbale de waxuma sama bopp de su ma ko bëgg woon am ko xam nga lu tax ni koy ñëpp defee di dem ci këri si kilifa yomb na ma lool te bëgg nañ ma ñëw ci ñoom it niti état yi it bëgg nañ may ñëw ci ñoom it waaye muñ laay jàng ndax loolu la ma sama bàyyi yare woon bañ ñu yóbbu Saalum danañu dafa am ko ñëw ne ko ñee ngay jàngal ñee nga yóbbu Saalum de dañ leen di liggéey loo dong waaye jàngaluñ leen mu ne ko njàngum kese taxul ma yóbbu leen fa damaa bëgg bu ñu demee buñ dundee ci àdduna dem ba gisutuñ ma lu ñu gis man ko muñ moo tax lu ma waaye def lu metti metti léegi-léegi ma xam ko koy dama koy dama koy muñ rek sama xol kon yéen ñi nga xam ne nii waaye waaye léegi-léegi waaye nuñ koy waxee waaye ñàkk sax amut ndax yàlla moom day amal nit ki ba si yàgg mu ñàkkal ko waaye ñi ñi xaw a néew doole bu leen gaaw saalit tout tànk du gaaw saalit nit du gaaw a salib nit du gaaw a décoration da ngay jàpp rek te bàyyi yàgg yàgg mën naa baax bu leen sàcc sàcc baaxut bu leen wor wor baaxut ku dem ba toll ci liggéey na nga liggéey ndax sa waajur wi la yor ba nga doon magum jëmm yorewul ak nen ndax sa gimiñ gi bu ci tabbalu toon ñam doo dem ba dëgër kon ku ci mata dem ba doon muskalaf na nga fexe ba bala ngaa dimbale kenn muy man laay wax samay taalibe laa ko jaare ak samay soppee ku mën a doon bala ngaa yëkkati dërëm di ma jox na ko defal say waajur bul dab sama bànneex ba bàyyi say waajur waajur a gën ñëpp yonent bi ñu ko waxee ne ko kan moo la gënal sa dane sa sa sa sa waajur wu jigéen wax ko ba mu ñett yoon muy doog di wax bàyyi kon waajur dafa foor bu leen jëndee seeni waajur ak dara propagande ma waxuma kenn li ma leen di wax nii seen njariñ la du sama njariñ seeni waajur bu leen ko jëndee dara kon nag day leen fexe ba di leen teral ñoom di leen taxaw boo leen amee téeméer bale ngeen a andil bale ngeen ma ko indil dem leen ko joxe ko seeni wajur yaakaar naa lii mooy ànd dëgg kat mooy seen njariñit ndax saa soo leen dimbalee seen i mbir gën a yokk kon nag yàlla nañu yàlla doole dimbale yàlla nañu yàlla doole taxaw ñu fekk ko at yu bëree bari day boo dajee ay nit ba noppi da leen wax dëgg léeg-léegi nag biir dëgg ji dana am yu ci neex loolu waaye dana am yu ci naqari am lu ci baax am lu ci bon waaye du tee dëgg rek la kon nag waa sénération bi am ngeen sasu rëy sëñ daam gën ngeen gën leen a góorgóorlu yoon waa ngi noonu nag saa su ne xàll naa tegal teg naa ay stratégie xam ngeen ne si civilisation dama ciy dox image yi bu génnoon fépp buñ naan 18 safar wala ñu doon jéem a waaj naan ci ay jamono li ñu doon xalaat ci ginnaaw naan màggal du am ngir luñ ko teg mooy rassemblement rassemblement moom état yi koy def sax dañuy dajaloo bu ñuy def seeni réunion ñu ne li réunion seexul xadim bi rek la am mooy di cant kenn muñuñu koo tere def dama koy def xam nga ne tere nañ ko fépp waaye nag cant léegi-léegi da nga ciy xaabaabal sama responsabilité la ndax defuma ko woon boobu ba léegi te bañ koy tere dëgg ñii xam nañ ne li ma leen di rus rus tàmbale maa ba ñoo xam ne daw ma leen jox loxo lank laay def la tax mooy damay wane un bon exemple waaye bu ma demee ba xam ne ay tappale rax na ci nag damay taxaw lànk laay def loolu la bu dee masque yomb na ñu ngi nii def nañ ko def ci yu rafet bu dee colkin ñu ngi ci doon jàngale ba léegi booba de léegi dañuy jàngale ak colkin muy nit ku yiw dafa war a sol sol lu rafet doon naa ko jàngale bu yàgg te nii bu weex yi ma def yépp loolu laa ci doon jublu kon civilisation mi ngi woon ci mouridisme ñu ni mënuñoo indi leneen lu bees masque yi ñu takkali sëñ doomi sëñ mu damin dafaal ji waxoon la rek du ragal corona wala ragal état de sëñ Muntaxa dong lañ rus waaye nag nañu waajal safar gi bu baax waajal bisub sëñ Tuubaa bi li sëñ Abdoulaat waxoon sëñ xanaa xamoo doomi sëñ Abdoulaat ji xanaa xamoo wallaay doomi sëñ Tuubaa yi doy nañu war sëñ abdulaat moo njëkk wax baat boobu jamono soppeeku nag ba audio yooyu yéex a génn diglu ngeen audio waxi sëñ Abdoulaat jooju mu ne bisub sëñ Tuubaa bi ku ñu ko teree def suñu bakkan lañ ci gar doomam ñu waxaat ko ñuy ñuy istati ay doomam fekk sa bàyyi ma ko njëkk wax man de kenn du ma bis bu sëñ doxali kenn du ma tëriw ma koo def lu ma ci góobe gar ko bis bu tubaab bi nag waxatuy nopp moom boobu moom boobu moom ko ko ko ku ci goree dee rek yaa koy a def bisub seexul xaddim bi ku goree doo yow nga yaa koy bañ a màggal waaye koo xam ne ni jar nit ñee taxoon mu jéggi ay ay njabootam ak i mbokkam dem ci biir géej tagal naa say doom ah, ngir dañ ma yóbbu waaye man fu ma jëm rasulullah rek yaay liggéeyal moom Seydina Mohamed tubaab yi jàpp nañ ma defe ne prisonnier bu ñu denc laa waaye fu ma jëm man ra Seydina Mohamed laay àndal rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashabuhu fil barri dina dóor nee na fu ma jëm maa ngi ànd ak badar ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amiin na ñëpp fas li ñu bëgg ñu fekke waat déwén fii rek ñëpp yokk amiin ñëpp ñëwaat fii rek amiin ci barkeb Xaadimu fas leen li ngeen bëgg taw feex nga yàgg fee ñëw yàgg fekk seen bi ak ñi nga àndal ak ñëpp rek amiin tànnal leen fas leen li ngeen bëgg amiin ñu ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha yàgg fi màggal gi yi ñuy waaj muy màggal gi dàq ci màggal yi yegg ca ak amin amin amin raayoo leen da koy ne sa